te man bëgguma desante ak kenn parce que du suma cër wante lu ëpp tuuru ci ay wax dafa doy xalifa Sall ne patt rek di ànd ak stylam ak yaram ñu koy saaga di ko saaga mel ni moom amul yaay ay maa ngi jóge ci kàddu yi mel ni moom amul amul soxna mel ni moom amul ay mbokk mel ni moom amul njaboot ñu koy saaga à partir de maintenant saaga yi jeex ku saaga rek di nga xam ne yaa ngi soog a laalaalaake parce que ça ne plus Yewwi Askan Wi nag moo tax ma ne damay communiquer lépp ñu seen loxo jàmm su amee yenn la su yàqu tamit ngeen gisee ko noonu ak déggee ko noonu parce que ñun tooñuñu kenn mais nag du ñu nangu kenn taxaw këram ndekki ba suur wala reer ba suur taxaw ne diw na ñu am lii wala diw na du am lii yaay kan foo ko teg yaay kan loo fi liggéey te liggéeyuñu ko loo fi daj te ñun daj dajuñu ko ci dëkk bi nit ki su la yéenee da nga koy yéenee yow tamit loolu mooy gor loolu mooy jullit ñun ñëpp ay jullit lañu kuy jullit mooy kuy julli et on prie de même Dieu yéen gis ngeen fii ba ñuy installé charte Yewwi Askan Wi gis ngeen ko fii leader taxaw fii ne man dama ne lii du ko waxaale ak kenn da ngeen di inscrire par force amnistie pour Khalifa Sall waaw wala déet tey nee na moom buggul amnistie nooku ñu am amnistie te ñii ñu ñii sax su suñuy demee sax bu wuti amnistie amaana sax ñu lor askanu Sénégal ba amee leen ak wax jooju rafetul maa ngi jógu ci kàddu yi rafetul nit ki mënul nekk sa doomu ndey di la wax yu mel noonu parce que yow soo jàppee ni que yow pour nga doon candidat jaral na la ñu boom ay centaines de sénégalais te sa yaay yi ñoo juraat yow soo jàppee ni wax jooju doo amee sénégalais yi ak waaw yow soo jàppee que ñun wax dëgg yàlla ñun amnistie moo tax ñu ameel sénégalais yi ak wax dëgg yàlla man je préfère ne pas commenter mais bàyyi sénégalais yi ñu apprécier loolu moo tax ma toog fii du ma tesante ak kenn mais Biré laa du wax ci kenn feesul suma bët ñu ma xamul rek dama ne ñu ma ñu ma xamul ba heure bi nii ñooy taxaw di ma toiser moi j'ai di non à Ousmane Tanor Dieng ancien secrétaire général du parti socialiste tout puissant Khalifa Sall bii wax naa ko non du benn yoon du ñaari yoon si vous pensez que je vous dirai pas non c'est que vous n'avez absolument rien compris